a Père Bourkhane wax na ko ay discipline ci biir làmb pour yow lan moo war a nekk responsabilité responsable écurie yi pour que discipline boobu mën a am ci biir. waaw xam nga dañ naan genn wàll musiba moo gën musiba. xale yi moment bi ñu toll signé nañ ay contrat moo leen téye te ñi ko bëgg a libéré wu. seen activité yu bëri mënatuñ ko kon ak mesure yu ñu leen mën a jox. mu jóge ci wàllu santé CNG imposé lañ ko dinañ ci ànd. Amadou bay wax na ko léegi. stade bu mille places boo fa defee 2000 places du feeñ duñ laalante sax mën nañoo sorante sax ku ne 4 mais problème mooy dañ koo waajul. dañ koo waajul. naruñu ko. parce que dañ ne woon la 5 janvier bi dinañu lett wala ñu firiñu ba léegi yooyu tudd yàpp yi rapport yi dem na kenn lettuñu kenn firiwuñu te lii ma gis bu continuer deuxième saison blanche la defaat. dama ne marché yi huit heures ngay dugg da nga fay yàgg làmb ja yàgguñu fa. fii huit heures ngay dugg marché moom pëcc xoo kaar yaa ngi fees dell. quatre vingt places ci biir kaar quatre vingt person ci benn kaar mais dañuy laalante. te ñu ko nangu tout la journée ñuy laalante ñu yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ñu nangu leen ko làmb ñu ne du fi amee base bi mooy buñ koy buñ yërëm wax ji yéen discipline yi boo mooy dina continuer di am ndax am na ci discipline yoo parce que. yeneen discipline am na ñu leen accompagner. bañ mën a def seen seen saison. làmb ji xam ne moom la askan yu bëgg lañ bëggul mu am dañoo taxaw rek ci làmb bañ a am yooyu yëpp ay waxi caaxaan la suñ tëjoon yeneen yeneen activité yëpp làmb ji da ko nangu ndax ñaata at mosoo dégg mbir yu dajaloo def di di casse seeni droit mais dafa jaadootul dañ bokk ci réew mi nag. dañoo war a jox cër bi ñu moom yeneen yëpp ay waxi caaxaan la nañu ko ubbi yëpp eh yàllaa yor feebar moo yor dee nañ respecté mesures barrières yi dañ bàyyi nit ñi def seen activité léeg-léeg ñu ne l'heure est mais ci ñan la grave yow mi naan l'heure est grave weeru dee nga fayu ki toog amul lu yóbbu këram koy kooku la heure bi grave ci moom waaw dama naan état bi bëggul làmb ndax football bi ñax yukkula football bi bu dul yenn ëk club yi loo xamante cinq club rek ngay tànn yeneen yëpp ci yukkula la ñuy dëkk <laughs> man damay la doon wax laay waxaat xam naa daal arène nationale ci nguuru Macky Sall la tombé ñii ne don la mais gërëmee nañ ko ko waaye ba fi Ablaye Wade ne ci la pare yi ëpp ci la sponsor yi gën a bëgg état boobu moo gënoon a bëgg làmb état bi fi nee